ngor ay bés yu ñu weesu amoon ay jàmmaarloo yu tar ci diggante ndaw yi ak takk der yi coowal suuf doon li ko sabab ñenn ci askan yi fa dëkkee di ñëwaat ci xew-xew boobule. yi dañ xëy bés bëgg a ñëw jël parking bi ne waaw seen gendarmerie lañ fiy def jeunes yi taxaw riposte na du fi am waaw. parce que ñoom neewoon nañ si fi ñu leen njëkkoon jox foofu 10 ans ñu ngi fa woon ñu xëy bés na inondation bi da leen di sona génn dem Wakaam fii ñëppay inondé man sama kër kër keneen ak keneen ñëppay inondé. patiru maanaam ngor lañ laal patiru maanaam ngor ñub xol si boppam moom lañ laal ñu xol te nit nag doo doo ñëw ba si biir euh, këram la laal laalab xolam loolu duñ ko nangu lenn moo la am ñu dimbali ñu ñu anareer ñu dimbali ñu ñu anareer ñu bàyyi ñu ñu euh, parking ñu seet ab site ñoom takkadeer yi nekk suñu mbokk mu waxee la mat fukki at ñu ngi dëkk ak ñoom fii problème moo am ñu toog ba benn bés ñu ne ñoom fu ñu nekk dafay inondé léegi boo déplacé fi ñu leen joxoon noonu à côté même pas 2 mètres la mat 300 mètres carrés foofu ñu proposé leen foofu bëgguñu ñu proposé beneen site si biir village fii ñu ne bëgguñu ànd feneen feneen proposé si côté virage bi tamit ñoom ñu ne bëgguñu léegi bon le maire bi ne leen jël leen 300 mètres carrés si kii bi si parking bi en attendant ngi def ay conteneurs. yaa ma ne en tant que ngeen defay comme ça léegi ñu xool léegi waa ji ñëw lundi ñu gis mu gas bi mu gasee ñu dem mu ne dañ dafa dem vérifier ne fii ah, état moo ko moom mais même bu ko état moomee sax bu ñëw rek gas da loo gis waxtaan moo ko jiitu. moom fii titre foncier la titre privé la ça appartient à les villageois village de Ngor ñëw ko moom buñ ne titre d'état la dañuy wax lu leen ne fii état amul dara fii. état il n'a rien ici bu leen fàtte colon yi ñoo fi nekkoon ak ah, suñuy maam ñu nekk fi nekkin wu rafet bu colon yi xëy joge fi dem seen yoon bàyyi fi suñuy maam ak ah, li ñu amee woon lépp ñu bàyyi leen ko fi. naam ay waxtaan dox na si diggante kilifay gox ba ak nguur gi ñoom ndaw yi di xam ne ni duñu dellu ginnaaw benn yoon. ba kaw neexoon gox la du wàcc ba ñëw ndakaaru di fi xëccoo ñun na ñuy maam. ñoo gën a malee seeni maam ngoon nag ñoom ne nañ ñu may ñun ñu liggéey ñu lycée lycée bi nag moo la lan ñu may ñu si jàmm ak salaam ñu liggéey ñu ñu lycée fii nag ñu patrimoine la comme comme comme ni mu la ko waxee rek ñu dañ laal ñu xool te ñu xool nag kaka laal laal ñu dañoo waxante dëgg te yàlla tax du Fuuta duñ fa dem di fa xëccoo ay ay ay ñu ñun duñ dem Tamba di fa xëccoo ay ay ay ay miin. comme da nga waxtaan nit. ñëwal nga continuer waxtaan wi rek à l'amiable moo gën bu bu bu fitna la bi laa jox léegi bon mu ne moom comme dans ce cas là moom état moom moom fii dañoo jël six mille quelques mètres carrés yëpp dañ koy jël tabax ka ab lii euh, a brigade si ñu la de la ngor fi war a am sa brigade ngor parce que wakaam ñun ñun ñu ñu maanaam ñun si wakaam la ñu rafeeroo maanaam mën nañu détaché benn bureau fii rek pour di jëndi papier yaa ma dëgg mais bu fekkente ne da nga bëgg a jaay nit doole dafa am ay mag am ay ndaw xam nga mag ñi ñooy xelaat ne nañ waxtaan mais xale la xale lan la fan lay gisee xale boo ko saagee da la boo ko saagee mu dóor la wala nga saaka mu saaga la. lii ñu metti si coow li mooy lii ñuy attaqué fii guddee bëccëg guddee bëccëg gendarmerie di ñu attaqué di ñu andil fitna chaque fois ñuy dugg di provoqué suñuy doom yi c'est hallucinant Sénégal lañ nekk wala dans quel pays lañ nekk wala nekkatuñu Sénégal lu waay neex def fu gouvernement ñëwee noggatu lébu yi. boogu ba léegi ñu ngi muñ di muñ ku muñ nag bu dal si miir bi di nga ëlbantu ko songi ji kii lay toroxal. puisque proposé nañ leen place yu bëri puisque ñoom fi ñu ne woon matul sax 300 mètres carrés te proposé nañ leen feneen 300 mètres ñu ne foo duñ ko jël bëgg a jël 6000 mètres carrés parking bi yëpp te ñun parking ko jël puisque boo xoolee fii Ngor ñu ngi jooy ay terrain piste bi boo xoolee li tax ñu perte ko ñu bëgg ñu jox ay feneen dàgg xol te foofu ñooñu tamit ñu ngi jooy instant dëkkuwaay amul Sénégal. te ñun nag pare nañ pour teg suñu bakkan parking bi duñ leen ko jox. nguur gi bàyyi leen ak seeni suuf ñu tabax ko ab lekkool moo di seeni sàkkuteef. site bi dafa am lu prioritaire ñun suñu xale yëpp lamat mat 40 bis dina génne fii ñuy fay chaque chaque année pour ñuy jànge lycée lañ fi bëgg a tabax waaw fu ñu doom yi tekkee ëllëg ndaxte ndaw mooy mooy mooy mooy jëriñ réew ëllëg suñu ndaw nag bu ñu échecgee dëkk bi de àddina échec nañ wax dëgg te yàlla tax fii. ñun dañ bëgg defal lycée loolu lañ bëgg def bañ ko defee ñu waa kër ñuy doom yi di fi jànge bakara yàlla dafa leen sutura ñun loolu lañ bëgg pare nañ pour def ko lycée te duñ leen may virgil sawaay nañ ñu bàyyee ñu ñu parking ñu seet beneen ab site waxaam neex naa wuti kayit wasalaam non non nañ ko def parking a lycée jeex na ñoom brigade ñu daggal leen feneen mais foofu moom du am brigade doy na doy na doyal nañ nañ ñu bàyyi a suñuy suuf ñun lébu ndooy ñoo moom suñuy suuf nañu bàyyi suñuy suuf sàcc nañ suñuy suuf lii si ëpp solo sàcc nañ ko def ko ay dëkkuwaay boo remembré boo remembré du da ngay delloo seeni borom mais lu tax ngay remembré ba pour jël féetale ko sa boppa jox ko say nit fii boo demoon Pointe des Almadies bu jëm la virage ay waalo waalo ñëw fi dëkk ay njàmbur njàmbur ay lugatuwaar jamono ji nag ab dal nemmeeku nañ ko ci diwaan bu Ngor donte liggéey ba ca parking ba mu ngi wéyandi ci teewaayu ay takk der yu bëri ak seeni woto